jaalibatan ilayhi tabaaraka wa taala bi shariati wal haqiiqati matee tawajjaha li qalbi shirku naqaahu tawhiidi wa yabdul harku idaa intaha ash-sharru ilaa lisaani zahdahtuhu bi dhikri dhil hisaani idaa intahat jawaarihil manaahi luzutu bi haadin amirin wanaahi matee nahaali kalkali daa'ul hasad asamani man liya sahahal jasad idaa lisaani ammahul qabiihu asamani min qawlihil mubiihu yamna'u awsaaliya min haraami wa min lagan mubaahu dil ikraami منعني العلم من الدلال وخوف ربي من الإضلال قال بيني وبين المكر رب الذي قد جاد لي بالذكر اختصني فاعلنا المختار بمنن تصونها أستار حبي ربي والكتاب والرسول عصمني وليقاد خير رسول قد حال بيني وبين الضرر باق حماني عن أذى وشرر رمت لمن به أتاني حرك صلاة فرد ما نهاني الشرك بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa wahaba li bi fadlihi niyatal xayri bihi nabiyuna ahmadu xayrul anbiya alayhi taslima xalili rabbiya yatrudu ahmadu rasulullahi الناس ونحوي كل الله يسوق أحمد بن عبد الله إلى سوى ذات ذوي الملاهي هرب إبليس لدى تفكري كما تخنس خلال العسكر ترسي عن الذي نهى الخناس خدمة من له أنا خناس adbara ibliisu li xayri baakiya wala yazaalu li luzuumi shaakiya lam yanhu ibliisu ila jihaati bi tardi man agna yadi an haati xidmatu xayril aalamiina zaxzaxat li xayri yalida wa gun man manahat yanqaadu li bi niyatil amaanu mimman huwa rahimu warrahmanu rafaatu hamdiya wa shukriya ila rabbil wara wan xaadali minhul ila baqaaw xaaliqil wara li junna an kulli suu'in jannatan lil janna hadiyatul xilli ilaahi xibbiya lii xalladat kawni suruural anbiya برأني الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن في دنياه من أكدارها خلا وحبا قد أمن ملكني الرحمن والرحيم دنيا وأخرى كلما أهوم أبدي سبيل الله للهداة za xidmatin lirrahmatil muhdaati liya yaquulu llaahu ilman lam yuraa min gayrihi wa min siwaahu lan yuraa liya yaquulu ilma man taqaddamu wa man taaxaru wa tabdul xidamu haadin hadal jamiica duuna shakki wa qaada lii kasfan azaala shakki araani arrahmaanu sirra dunyaa yaa ba azaayal xalqu duuna sunyaa laanat liyal quluubu wal abdaanu saalamani lbidaanu wa suudaanu rajaatu an gayri rida arrahmaani waqad kafaani kadara al azmaani xibaau man laysa yamuutu sarmada liyatawajjaha bi madhi ahmada محمد خير البرايا صلى عليه بالتسليم باق جلا إلي قاد مدحه ما قاد من الخصائص ردا فانقادا نلت بمدح المنتخى ما لم يكن قدت لغيري وبه فزت بكن أعتاني الرحيم ما يغبطني فيه دواما كل صافي حتني li yaquudu fil jinaani abada maa laa yaraahu abadan man habada rahmatu rahmanin rahimin lam yazal kulliyati kafat makaarihal adal xubbu rahimin lam yazal rahmaana maha adaaya qaada lil amaana yaquudu lil baaqi dawaamanil bushar waqad maha anniya sittata ashar